doy waar la ñu dem seeti comédien bi nga xam ne actuellement nii mën na nekk président de la République ndax jaaxal na gars yi te li ma ci neex waa ji nee na bu gagné nee na sama kër lay ñëw <laughs> ah. <laughs> ah tak budan baku je budan cokok budan tak dora bung pak tak bung tur tak har budan har har bul har ka jakar bat ke kar ka cokot kat ka cokot har cukulina cukulina cukulina gur gur gur kat زرنتكي زرنتكي كركت كت كت كت كركت كت كرك خركت كركت كركت كركت كركت برتور ليني كركت إلكتروني bartalan kor kor dunnara kar burunguk ya ya ya karti karti karti mati karki karkot karkot karkare talar eh. gud gudal ahba gudal nahla pakar karti kart kart karta kart kart oh pal cakar jak cakar gundo na cakar gun bacar bica gar gar kurku darka mencar gungu kargale ke kargale ke kargale ke kargale marakanala домрека домрека домрека дугургу арка камаса зрелки перда кеткет на перда кеткет кадакарло кеткет котке котка перда кеткет кеткет кеткет чагареле чагарелеге нугурлого janг janг janг janг janг janг janг wode tajo banyaga bugur bugu bugur bugu jakarkan ka jakarkan ka jakarkan ka jakarkan mbace dago waaw waaw waaw waaw waaw man man dégg bi gewel bi bi nekk gewel karka olof Sénégal kuca kuca Sénégal bi gewel man man nekk président Sénégal Kouthia jargale jargale ba jargale kar kar kar zeret ki bi gewel ko bejeen amul woon fit ah. Kouthia Sénégal Afrique def candidat ah. am fit ting kono ke imtel ko ta ko gewel gewel ko to gewel ko da ko ma je gewel wax baax man eh karba de ba rek wax baax karba de de do wax karba de karke te karke ko karba de karba de karke te